yéen waa Mbour Petite Côte ana ñi tawat bëgg pajamu set bi gën a set baa ngi nii Cheikh Baye Ibrahima Niass ma ngeen daan dégg ca Ndakaaru ñëw na ngir jege siwaat leen ci adresse bu am solo bi nekk fii ci Sali Carrefour table ten ba numéro téléphone ya di 78 281 01 62 wala 77 899 57 alhamdulilah alhamdulilah allazi bi nehmatihi wa jalaalihi tatimu saalihaati salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokku jullit yi fu waay mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen feddi leen te kóllëre ñun la seen mbokku Cheikh Baye Ibrahima Niass tey nag suñ tànk yi si mbuur dañoo ñëw pour seet si waa mbuur di leen ndokkeel ndax gis neen ne bi nga fi ñëwee ba léegi taxawaay bi rafet na ñëpp a ngi fi daw di ñëw ñu ñaa ngi ñuy ba xel ñu ñaa ngi oo waxtu wu ne di ñu nemmeeku tey dañu kose ay tournée tournage bi si njëkk mbuur la d'abord mbuur lu tax njëkk fee ñëw mooy mbuur dafa nekk dëkk boo xam ne jeunesse bi fi nekk dañoo laaj ñi dimbale leen si côté bu ne parce que dafa doon dëkk boo xam ne tey rab yi mbaax rab yëpp fi leen féetee tey boo ne mbuur rek li ñu lay njëkk a jox mooy dañ lay wan ne la soo génnee mbuur yaa ngi jëm Joal Fadiouth yaa ngi jëm yeneen yéen a si dëkk séeréer si maanaam dëkk bi tey dëkk rab yi la rab daf feebari bëri trop ñu gis ne jeunesse bi ñu ngi yëngatu ba sonn te mënuñoo am dara ñu gis ne jeunesse bi ñu ngi def ay effort luñ mën te mënuñoo am dara aussi ñu ngi dem si ay sëriñ di ñaan lu yàlla seen ñaan di gën a métti ñu wax ne pourquoi pas ñun clients yi ñu fi oo te waxtu wu ne ñi ñuy oo mbuur ñoo gën a bari ñi ñuy oo faneen ñu ne ndax duñ dem mbuur saafante ak jàmm yàlla yi dimbale leen ci yërmande gin indaale ndax ñun yërmande kese lañ indaale te mooy suñ tànk te moo ñu tax a jug. lu mel ni wàll ubbeeku mi ngi ci ñun lu mel ni wàll rab ñu ko amee te mu bëri ci ñoom parce que boo xoolee tey. yow mbuur nga dëkk da ngay seetlu ñu fiy faral di ne di daanu rek te duñ xam li leen di lan la nga gis na tey ñu jigéen ñu bëri dañuy capturer seen bopp nekk ci yeneen image yoo xam ne war nee na mën a romb noonu pour doon ay yaay mais tourisme bi di fi wàcc tey ñi ngi bëgg a jëflante ak ñoom pour doomi mbuur yi gis ci seen bopp mënuñ see gis seen bopp ñeneen ñooy jugee fii di ñëw di fi gis ci seen bopp tey waa Mbour mën nañ ñuy xaaree lu bëri mën nañ ñuy xaaree lu bëree bëri bëri bëri si côté mystique ak si côté dimbale leen rawatina ñi nga xam ne tey ay rab daf leen a sonal trop parce que Mbour dafa doon dëkk boo xam ne dafa bëri rab trop bëri na it ñu fi ne ñoo xam ne tey tukki rek lañ bëgg te mënta sotti dañuy jaabantal dañu uti ba sonn mais fi ñu taxaw rek la ñuy taxaw moo tax nag dañoo jël intation tey pour ñëw fi tey samp fi cabinet cabinet bi ñu fiy samp nag ñëpp la ñeel du kese. waaye li si ëpp doole si biir mbuur la nekk muy jeune muy jeunesse bi sama mbokk góor ñi ñu si ëpp dañuy am ay problème yoo xam ne duñ ko mën a dee nit duñ ko mën a wax nit problème yooyu tey bu yàlla defee ñu egg si ba si ñun dañ leen koy fajal. war nee na jëflanteeg ñun sax si seet boo xoolee ñun seet sax daanaka duñ ko defal nit lu bëri parce que nit ki bu ñu ooyee rek wala mu foto loxo ndey nii rek bu ñu wanee loxoom bi rek wala mu jox ñu turam ak tur rek lépp luy nekk si moom xam neen ko. te it d'abord it bala ñëw njëkk a defal nit ki ñaan daneen xam jëmmam ji lim laaj lan la parce que tey booy nekk di dimbale nit foog nga xam nit ki li koy dimbale lan la parce que da ngay gis doomu aadama yu bëri dañuy daw ci sëriñ ba sonn duñ gis njëriñ duñ gis dara seen communication bi yëpp mooy man sëriñ bi daf ma nax lekk sama alal mais li waral loolu mooy il faut nga seet nit ki ba xam yow mën nga koo ñaanal wala mënoo koo ñaanal ba pare it ci wàllu xañ na garab gi ñun dañ ko maîtriser walla ngóora dañ ko maîtriser ba nga xam ne dañ ko déparé si liggéey ko si anam yoo xam ne si réew mi fii lañ ko bàyyee amul benn tox bu si nekk boo xoolee tey si tubaab yi dañ ñuy jox comprimé pour ñun ñi toog trente minutes soo ko sëy te comprimé boobu danger la si ñun léegi nag ñu xalaat ñu ne est-ce que ñun suñ xeetu mbayeer yi ñuy lekk lan lañ si mën a defar loo xam ne mën nañu jural ñi am ngóora ba faw ñu sàkk nag si yenn xeet yoo xam ne dañ ko jàq dañ ko bay ba mu ñor ñu defar ko di ko jox góor ñi ni di ko naan ba pare góor ñu bëri dañuy am problème yi néew kàttan li ëpp lu leen ko yóbbee dañu fooye seen bopp ñi si ëpp lu leen ko yóbbee rab da bokk hémorroïde da koy def siti da koy def bolomaa da koy def léegi nag ñett xeeti feebar yooyu yëpp bu dajaloo si yow dootoo amati ndox pour sëy te góor bu amul ndox dootu sëyati léegi nag ñu xalaat benn affaire ne na est-ce que ñun duñ def lii traitement pour góor gi ci boppam mu ñàkk génn ci walla néew kàttan ñi def traitement bi defar garab bi yóbbu ko ci ay laboratoire jox ko ay kilifa ñoom ñu jël garab gi xool ko seetu ko ba garab gi doy leen ñu jox ñu ci ndigal ñu defar ko garab googu boo ci jotee tey meew rekk nga koy boole nga naan da ngay sëya sëy ba yëg na yow yaa ngi sëy ak sa jabar jigéen gi aussi bu amee problème biir boo xam ne dafay ëmb ëmb bi di tuuru dañ koy tàggat si rab tàggat ko ci ay traitement yu koy dindi wala mu doon koo xam ne dafay sëy te mënta am doom bari na d'abord jigéen ñuy sëy yu bari mënuñu am doom boo xoolee tey si fi ñuy waxee fi ñuy waxtaanee mooy mbuur mbuur tey da ngay gis jigéen ñu bari pour ñu dajale fi njaboot day bari parce que rab yi ñoo koy daane parce que boo xoolee tey mbuur tëkk ndox la li ko wër yëpp ndox la li si li li ëpp lu si nekk. wàllu yàlla yu bëri fii lañ jotee seen maqaama loolu ñu bëri xamuñ ko moo tax dëkk bi képp ku fi nekk te amoo ñaan rek mën nga doon ku gàtt fan la plupart del seetlu ku fi yëkkati ko tur tuuti rek da ngay gis su fayut dafay dee loolu moom bëri na si dëkk bi loolu nag rab yi ñoo koy def d'abord nag bu nit ki ñëwee si ñun loolu yëpp dañ koy dindi ba mu set wecc ba nga xam ne gàllankoor yooyu dootu ko sonalati. waaw loolu lañ leen andil xam nga liñ leen andil sax loolu moo si gën a tuuti. mais comme wax ji waxtu bi dafay xat te dafay te dañuy tënk rek mooy na ñu ngi owaa waa Mbuur oowuñ leen oowaayu dara dañ leen oo pour dimbalante ak ñoom su ñun jaam yu xeebu yi nga xam ne am na cër gu ñu yàlla jotale ndax tey dañoo wax ni ne boo nekkee ci benn cabinet chaque jour nga recevoir quarante personnes kenn ku nekk ñëw dagg tikatam cinq mille te bu ñëwee dana ebal xaritam mu ñëw jàppal ne li ngay togg baax na ñun Sénégal lañ nekk képp ku fiy defar lu baax nit ñi daneen la wër képp ku fiy defar la neen doo fi gis kenn tey nag ñu ñëw tey xet li si waa mbuur partager ak ñoom li ñu yàlla may ndax ñoo ñu doon o fu ne depuis 2018 lañ bëggoon a ñëw fii Mbour waaye 2021 la ko yàlla soog a def kon tey la ko yàlla soog a nangul mu ne waaw ñu ngi leen ñaanal yàlla bu baax na leen yàlla defal jàmm seen seen bi aussi yàlla may leen si tawféex yoo xam ne dina sut seen njort wasalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Mbour Petite Côte ana ñi tawat bëgg pajamu set bi gën a set baa ngi nii Cheikh Baye Ibrahima Niass ma ngeen daan dégg ca Ndakaaru ñëw na ngir jege siwaat leen ci adresse bu am solo bi nekk fii ci Sali Carrefour table ten ba numéro téléphone ya di 78 291 01 62 wala 77 899 57 57